leen mbokk yeek xarit yi teewlu télévision ma bi Bichri ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaar di leen ñaanal jàmmata di ko sàkku ci yéen di leen wax léegi-léegi rek ñu ànd ak yéen ci seen ay xibaar ci gàttal bokk na ca la gën a sa mbokk yeeg xarit yi rek comme ni ma leen ko junjee ñu daal di wutali wax ci li nga xamante ni mooy inauguration bu mosquée Massalikul Jinaan bi nga xamante ni it moo nekk fii ci Ndakaaru moom nag dañu daal di toxal li nga xamante ni mooy inauguration bi ba jëmmi jamono te ñu waroon ko amal nag ci weeru septembre bi nga xamante ni moom la ñuy dëgmal la loolu nag xibaar ba nga xamante ni ki nga xam ne moom la ñuy wax la porte parole xale xalif général des Mourides moo ko daal di xamle rek ci benn déclaration bu mu def niki démb foofee ca. Touba daal di say xamle sax naka boobu inauguration ñi ngi xayma ba ma koppar bu toll ci ñaar fukki milliards ci sunu ay koppar te ñu fas yéene koo amal incha allahu rabbi bu ñu tabaskee ba pare ci noonu nag muy app dogal boo nga xamante ni nag ki nga xam ne mooy xalif général di murit ñu gën ko xam ci sëriñ Muntaxa Mbàkke Basiru ak ki nga xamante ni mooy sëriñ Mbàkke yu fay ba ci sëriñ Basiru Mbàkke Abdou Xaadar ñoo daal di jël boobile dogal te la sabab sax nag dogal boobile mooy ni kat ni maanaam dañuy daal di xaarandi nga xamante ni rek mooy nawet bi jàll ngir ñu mën a amal li nga xam ne mooy inauguration mosquée bu Masalikul Jinaan ñu daal di àddu ci leneen daal di def direction jëm foofee nga xamante ni mooy Kolda daal di wax ci foudre bi nga xamante ni it dafa daal di indi ay faat yu metti ci dëkk boobu loolu nag ñu daal di xamle benn xale bu góor bu toll ci ñaar fukki at ak ñeent jot na ca ñàkk bakkanam ñu daal cay xam ne it ni dafa yoroon benn charrette yaboon ca it ñetti soxna daal di jugee ca dëkk boobu nga xamante ni mooy di Gàmbi waaye ci noonu ñu daal di xam ne doon na lu nga xamante it daf leen di bett ñu daal di dem ca dëkk boobee nga xamante it dafa daal di rey ñaari doomu aadama muy dëkk bi ñuy wax Bagadaani ñu daal di xam ne kat ñaar ñooñ jot na leen fa faat ba xam ne askan wi it daal di jug taxaw temb rek di wax ni kat dafa daal di jot ngir ñu jox togal leen lu nga xamante ni dina leen aar lu ci mel ni ay paratonnerre ngir rek ñu mën a mucc ci li nga xam ne mooy foudre bi ndax nag dañu gis ni at mu jot ci nawet bi kat doon na lu nga xamante ni dafay daal faat ay doomu aadama yu baree bari ci dëkk boobu bi nga xamante ni mooy Kolda ñu wax ci li nga xam ne nii it moo daal di lëmbe li nga xam ne mooy dëkk bi bari ba bëgg a dee mooy immigration clandestine ñu daal di wutali ca Mauritanie ñu daal di xamle it nii kat dañu daal di tegaat loxo ay doomu Sénégal niki ki démb foofee nga xam ne mooy Mauritanie ñu daal di toll ci juróom-ñaar fukk ak juróom yoo xam ne dañu doon bëgg kat dem ca tugal ci noonu nag muy xibaar bu nga xamante ni it benn directeur bu police mauritanienne ñu gën ko xam ci Mohamed Abdallah Ould Taleb moo ko daal di xamle loolu nag la mu xamle ci xibaar yi mooy ni ginnaaw juróom-ñaar fukk ak juróomi doomu Sénégal yooyu it am na ñu nga xamante ni réer nañu mër ci biir désert bu Mauritanie waaye it am na ñu ci jot a teg loxo ñu nekk foofu ca Ndar ak dëkk boobu di Joal ci bu ñu sukkandikoo it ba tey ci nga xamante ni mooy directeur bu police bu Mauritanie la mu xamle kat la tax maanaam ñoo ñi lee daal di lajj mooy ni kat seen embarcation ba dafa daaju woon amal benn paan ci biir géej gi géej gi gis na ni kat jotoon na leen yóbbu ba foofee nga xamante ni la ñuy wax large bu côte bu Maroc waaye ba ñu paanee foofukat kat la leen indi ca Mauritanie mooy ngelaw bu metti moo tax ñu daal dafay wàcc ci noonu ñu daal di xamle ci nit ñooñu nga xamante ni nag jot nañu leen teg loxo ñuy juróom-ñaar fukk ak juróom gis nañ ni it ñu bari dañu xawoon a dikk ak tawat bu metti maanaam coono gu mettee métti ba ñu yóbbu leen ci seen ay urgence di leen faj ngir ñu dal bu baax di xaarandi nag li nga xamante ni mooy seen ay rapatriement ñu àddu ci coowal ki nga xamante ni moom la ñuy wax Imam Badara Ndaw maanaam mi nga xamante ni it ni ki démb yoon dafa daal di teggi loxoom ci moom ñu daal di xamle kat maanaam chambre criminelle spéciale bu Dakar moo daal di def lu ni mel ginnaaw nag ñetti atu kaso yi nga xamante ni jotoon na ko tëdd ci noonu nag ONG bi ñuy wax Jamra taxaw temm ngir xeex ak ak yelleefu doomu aadama ñoom nag dañu daal di yëy yàbbi ci lu ni mel daal di xamle kat dafa daal di yomb lool Imam Ndaw ñu daal di koy bàyyi noonu te duñu ko def li nga xamante ni mooy ak li nga xamante ni mooy intérêt maanaam daal di koy jox ay ndàmpaay ci noonu nag bu ñu sukkandikoo ci ONG Jamra ci turu ki nga xamante ni moom la ñu wax le vice président mu ngi gën ko xam ci maam maxtar Gueye moom kat la moo xamle mooy ni daañu def ab say muy doon ñaareelu jéego ñeel li nga xam ne mooy procès Imam Ndao fas yéene dem ba ca këram waxtaan ak moom foofee ca Kaolack ak ay avocat ak ñi nga xamante ni takk na laale lañ ci lu ñu mel ngir ñu mën a xeex li nga xamante ni mooy àqam ak yelleefam ba état bu Sénégal def ko ay ndàmpaay ndax nag gis na ni ci biir ñetti at yooyu xamante ni tëdd na ko ci kaso bi indi na ay jafe-jafe ci lu ñeel ay activité économique am ci noonu ñu wax ci tukki nemeeku bi nga xamante ni it moom le président chinois Xi Jinping war na ko fi amal ni ki ëllëg fii ci Sénégal ak naataango muy ab visite deta ki nga xamante ni mooy Macky Sall mu doon it tukki nemeeku boo xam ne ci diirëpp ñaari fan la ko fii daal di amal ci noonu moom président bu chinois bu Chine ngeen baal ma la mu xamlekat mooy ni doon na visite ñaari fan yu xamante bu mu nar a am fii ci Sénégal ndax la mu jàpp kat mooy dina yokk li nga xamante ni mooy xam-xam bi diggante ñaari dëkk yi waaye it dina li nga xamante ni mooy xaritoo waaye daal di yokk bi nga xam ne moom la ñu gis fii ci même réew ak foofee nga xamante ni mooy mooy euh, Chine ci noonu nag la mu xam ne it mooy ni kat mi ngi rafetlu bu baax a baax confiance politique bi nga xamante ni moo am seen diggante diggante Sénégal ak dëkk bii di Chine waaye it daal di rafetlu bu baax a baax diggante Sénégal ak Sénégal Sénégal ak Chine bi nga xamante ni gis na ni kat maanaam diggante bi dafay gën di suqaliku jëm kanam rek ci noonu ñu daal di àddu dem ci bitim réew wax ci. dëkk bi nga xamante ni mooy Cameroun ngir dar képp rek li nga xam ne mooy tënkoo xibaar yi wax ci ñaari soldat camerounais yi nga xamante ni dañ leen daal di teg loxo daal di leen joxuñ tuuma ci ay jëfin yu jéggi dayo yoo xamante ni def nañ ko ci ay nit mu doon ab vidéo bu nga xamante ni ni ki fan yëpp mi ngi daw ci biir réseaux sociaux yi ñu daal di xamle kat boobu vidéo dafa daal di ñaaw ñëpp daal di koy ñaawlu bu baax baax ndax naka la ñu ca wane mooy ni kat ay takk der yu Cameroun dañu doon tiire ay fetal ci ñaari soxna kenn ki mi ngi boot benn xale waaye keneen kii it mi ngi yor li nga xamante ni ab tout tànk la mu ñu gis ni kat lu ñaaw a ñaaw la ñu daal di xam ne ñooñ nga xamante ni jot nañu leen teg loxo mi ñeenti soldat camerounais yi ñu xam ne kat jot nañu leen déglu waaye it daal di leen di joxoñ tuuma ni kat dañu bokk ci groupe islamique bu Boko Haram noonee Amnesty International di bi daal di ni daal di xam ne ni di ko leer mooy ni am na ay preuve yu kenn mënul weddi ni ni maanaam ñi nu seen ci bi ginnaaw nag benn analyse bu nga xamante ni jot nañu ko def ci ay armes yu nga xamante ni moom la ñu jotoon a yor waaye it ci la nga xamante ni moo nekkoon seen ay uniforme mbokkee xarit yi di daal moo daal di li nga xamante ni mooy seen ay xibaar ci gàttal ñu leen di jaajëfal ci teewlu bi di leen ko rafetlu bu baax a baax di leen wax ne skis rek la koy toftal mooy seen xibaar yi nga xamante ni mooy ñeel jaww ji maanaam seen journal météo di leen wax jërë ngeen jëf di ko jaajëfal moom ma Pafal mi nekkoon ci caméra bi waaye it di di ko jaajëfal bu baax moom Serigne Bichri mi nekkoon ci wàllum réalisation bi di leen ñaanal jàmm di ko sàkku ci yéen te di leen daje ba beneen yoon ci yeneen i jotaay xibaar. ahbabtu rabbal alamin maalamin wal amin man

yàlla yàlla woon ko sax الكريم بكتب ليس الكريم أنوارها ولي الروم أحمد خير صفدي الله رب العالمين